asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi àddina wërngal këpp foofu waay man di nekk rek ñoo ngi lay nuyu di la siyaare te di la balaax te di la balaax di dellusiwaat rek ki niñ ko baaxoo di defee saa su nekk bu actualité amee wala lenn lu soxal askan wi loo xam ne si lu baax la lu woo xam ne si lislaam rafetlu na ko ñu jël ci suñuy disposition fas yéene ànd ak yéen ca loola maa ngi wax ak yëpp nag waxuma ak murid yi kese jullit yi laa waxal ñi nga xam ne ay jullit lañ ndax kuy wax da ngay wax akub jullit ndax nun noo bokk li ñu gëm muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk alxuraan ñoo bokk penk ñoo bokk makka ñoo bokk bépp digle ñoo bokk bépp tere kon nag lii may waxit ak laabire képp laa ci jublu laabire googu nag yaakaar naa ne kenn ku nekk war nga cee eh, bàyyi sa bay bay sa waar ci boo ko déggee te xam ne jullit yem du dara lu dul ñaan ñaan képp mooy ngay ngànnaayal jullit waaye ñaan bala nga koy def na nga tënku ci li la yàlla digal li tax yàlla wàccee la fi li tax yàlla bind la loola nga war a jëkk a def te wax dax yàlla moo ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduni binduma jinne ak nit lu dul ñu jaamu ma waaye lu mu ca teg wa maa umiru du liya'budu ma leen lu dul ñu jaamu kon jaamu yàlla moo na tax wàcc ci kaw suuf bàyyi leen ko xel bu baax yàlla lalul suufam siidéy def ci ndoxam mii def jox ñuy moyen ngir ñuy fo ngir ñu ñëw di ko moy déedéet bindul fenn na dem dama leen a wàcc ci suuf ngir moy ngir ngeen di moy sama ndigal yi dama leen bind ngir ngeen jaamu ma waaye dama leen a digal ngeen jaamu ma kon loolu dafa war a leer te dama leen a waxoon ne nit li ko composé lépp yàlla da koo tegaat ci biir àddina teg nit ki ci biir loolal wër doomu aadama penku sowu ak gànnaar ak saalum te mooy suuf mooy ndox mooy sawara mooy ngelaw ndax nit ki ngelaw moom la nit ki jamono boo ko xoolee ngelaw duggatul ci moom génnatul ci moom xamal ne koo ko day faatu kon nit ngelaw la nitit sawara la ndax soo tegee sa loxo ci kawam ne sedd na guy sawara doog a duggatul ci moom génnul ci moom faatu na waaye nit it na ngeen xam ne suuf la ndax suuf ci la ñuy denc nit ki ci lay tëdd ci lañ koy dekkal ci lañ koy atte yooyu nag yàlla da koo bind bind ci nit ki ba nit ki nekk matière boobu taxaw yàlla ne ko demal nga jaamu ma yàgg ne digaluma leen lu du ngeen jaamu ma jël loolu mu ko bind nag tegal ko ko ci àddina muy suuf ak ndox ak sawar ak yépp ne ko jaamu ma léegi nag bu ñu ko nanguwut a jaamu yooyu lay yabal ne ko demal xeex ak nit ki gis ngeen trambalement de terre am na ci réew yoo xam ne si moom la leen yàlla di nattoo gis ngeen lu wel na wàllu ndox gis nga li mu indiloon senegal Sénégal 2012 gis ngeen ko gis ngeen Indonésie gis nga ne leen géej ga def waaye gis ngeen it li nga xamante ne si mooy sawara mooy volcan yi nga xamee ne waxtu jot mi ngi nangu ay dëkk nekk fa di leen yóbbu te lenn lu ci ñëw nag yàlla képp képp képp képp képp ci man dara keneen mënu ci dara comme nun jullit yi nag yàlla daf noo digal na jaamu leen ma ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma dolli jullit bu dem nag ba roy ñi nga xamee ne nii duñ ay jullit non seulement ñu wàññi ko di contre jullit ah sanction yi ñew ci adina baangi ni ta yalla mom moom ko ko fàtte bis bu la fatale bopam da ko du too ko fàtte ndax li la ba te nga jaamu yalla li la tënk ba tax ngay moy yalla lolo bis bu la tege ben nattu ci adina bi du to ko tal to ko tal ta ab julit liko war moy ba mu jaamu yalla nay faral di tuddu yalla, nay faral di sante yalla, nay faral di jeglu yalla. sante yalla, ak jeglu yalla, ak tuddu yalla dafa warub julit di yër debi bu tedd bi moy alquran alkarim donte ben isib nga ci jang par bes tax seigne touba sax wax ko addim tilaawatan wala salasatan min al asabi min al asaabi loolu sëriñ Tuubaa ci bopam dako wax rawati nag ki nga xamne ne ab murid la tax xam ay ndigal mu war ko xam julit nak bu demee ba yoy yep de ci xolam ba dutu ci lal dara julit bu dutul tuddu yalla bu dutul sante yalla bu dutul jeglu yalla julit bu dutul jang alquran bu dutul jamu yalla te li ko ñor ci àddina te mu gën a jafe alxuraan mi ngi ciy xëy te lam ci bëgg a xam ma ngi koy xam na ngeen xam ne bis bu ko yàlla fàttalee boppam duutu fàtt yàlla ba àddina di tukki te gis ngeen lii xew ci jamono ji siin la tàmbulee lii ñuy wax coronavirus lu tuuti la la yàlla comp sànni ko ci àddina bi lu tuuti la la yàlla comp sànni ko ci àddina bi te ñun africain Ebola jaaroon na fi te la jiitu Ebola ay peste daana fi jaar feebaru peste jamono Cheikh Ahmadul Xadim jaana fi jaar ay 1925 gis ngeen ko ci njëriñ ba kum masaan dal dañ koy lakk sëñ Touba waxoon tubaab yi ne leen man sama ñoñ bu leen leen lakk ñu am ci ñu daan jël di leen indi leen sol am na ñooñ fañ daan faatu fa lañ leen daan sol peste bi jaaroon na fa tey dem nañ ba coronavirus ñëw te am na yu ko gën a dansé te lépp ci loxol yàlla la nekk te yàlla dara sëfu ko te yàlla kenn kenn du ko conditionné kon nun ñi nga xam ne noonu ñaan lañ am yàlla baaxe na sëñ Touba. nañ ormal sëñ Tuubaa yi ndax ormal sëñ Tuubaa mooy mucc àddina ak alaxira mais nit bu demee ba bew ba xàmmeetul ak boppam mala yàlla moom am na sanction yi mu koy teg yooyu duutu tal lam lam doon def ndax fi ne nii li ñuy mën a yàqule bari na nun lu ñuy def xëccoo àddina talatun alaxira xëccoo àddina àddina boobu nag weesuwoo ci dul xëy di dang dange di dem di liggéey liggéey boobu boo demee ba yàlla indi virus bu toll nii dana dem bam la nga doon bëgg sax duutu am la nga bëgg duutu ko am te yàlla waxoon na ko inna allaha la yuqayyiru maa bi xawmin ataa yu xayru maa bi anfusihim nit ki jamono boo xamee ne soppiku na ci li ko yàlla tegoon yàlla daa di nangu lam la joxoon waaye du yàlla mooy soppiku kon nañ leen tuub bayit bii ma leen publicité nag nga xam ne Cheikh Mamadou Lamine Baara men ñoom yàlla def leen a mayoon ñoom jabatuk Sëñ Tuubaa gi kenn par kenn kenn ku ci ne buñ masaan dem ba jamono tollu ci lenn li am na lu ñu daan saafara li nga xam ne mooy loola ci jamonoy Sëñ Tuubaa jamono ji nga xam ne soxna Awa Busa doomam ji ñuy wax soxna Mariama Kunta wàcc na ab liggéey Serigne Makhtar Sylla ma nga xamante ne sii moom ci wàllu boppam moo ko juróon gis nga ne bi waa waajuram wàccee liggéey dañ koo jël andi ko njëriñam jox ko maamam soxna Awa Busa feebaru peste boobee gis nga ne gaaroon na leen waaye ñaan ga leen sëñ Tuubaa joxoon a ah, gis nga ko loola tax na ñoom ñu mujj ñu ñu mucc ci sëñ Mamadou Lamine Baara mii loolu daloon na ko fi bi sëñ Tuubaa demee ci géej gi muy feebaru peste boobu laal na sëñ Modou Moussa laal sëñ Fallou ci kër sëñ Dame Abdourahmane Lo wala kër maam Thierno te gis nga ko mucc nañ kon la yàlla di maye du ko xaj ab jaamam kon nañ cey jote moom la ñuy wax waaye du ko xaj ab jaamam nit nag mën naa am addina am alal am ngànnaay am lépp te du jullit ba jàpp na jekku na addina ku ko weddi xoolal na wala nga xool Namrud ak jay rek a leen jàppoon ba tax ñu defee na yàlla la mais yàlla du dara ci moom mu xëy xëy xëy likkati leen jële leen fi am lu mu teg ci ndaw lu ñu fàttee lañ seen góor waaye gis nga ne yàlla it am na sirru mu ndaw muy def ci ab jaamam bu mu gërëm boo xamee nekk que ni lu kënu rëy rëy rëy rëy lee koy ëpp doole ndax fi ne bu ñu demee ba jàqle du ñu def lu dul tàllal jullit yi loxo comme ñoom nag jóg di fay l'islam moo leen yitteel jóg di xeex l'islam di xeex alxuraan def ko ci méthode bu ne def ko ci logique bu ne te gàll ko ci bakkan mu jaral leen wut alal di ko tasaare ci àddina wërgal këpp di convaincre nit ñi di corrompre nit ñi di forcer nit ñi di len duggal ci li nga xamne ak mo yalla la lu melni borom ñaari suh yi ñi ngawte ngawtee ta yalla daan ci yëngal suuf non nañu daal di wat ci sunu borom ndax maam Cheikh ibrahim Fall daana wax ne yalla di fois warut joge sax ba di fa dellu nit bu xamatul fu mu jëm day wat fu mu joge won ñaan gi nga xamne mom la accompagner ak vidéo bi lu julit dëgër dëgër dëgër dëgër wala lu julit ñak xam ñak xam nak ñak xam na nga xamne bu fekkante ne la la ñor ci adina yaangi ci ciy la la koy may jëm nga fexé ba xam ko bu dee ko nekk bitim réew gii te ne man kat jënguma araab jënguma alxuraan italien moo gën a jafe fukki yoon ak juróom jàng alxuraan te fexe nga ba lijjanti ci sa bopp xam na ngay def kon na nga fexe it ba lijjanti ci bayit wii fexe koo xam te di ko def te yàlla tax yàlla mën na la ca musal te xasida yii ñu jàng ci biir réew mii tamit xeeb nañ ñu bañ nañ ñu suufeel nañu waaye la sëñ Tuubaa waxoon na walay sa yujibu sawaadal jismi safaaxatal fataaw wa a saf mi fa wa suu a fax mi doon der bu ñuul bu mu tax defe ne da des gannaaw lu jóg nga defee na tubaab yi la lii tubaab yi mënuñu ci dara te tey tubaab yi dem nañ tey ba yaakaar na ñi ngi am ñu ñuy convoquer pour ñu def ay ñaan kon nag nun tuutiwun kon nan xam suñ bopp ñaan tey jaamu yàlla tey tuub tey moytu lu bon tey moytu lu bon ab jullit war ta jege lu bon rawatina ab murit koo xam ne si sa sëriñ li mu lijjanti lépp ci sariya bu sell la ko teg yaakaar naa ne kooku ku ànd ak moom war nga jëm sa kem katan ni ngay dacc ci àddina nga jëm ko ko re xol ko boko defé da nga mucc àddina da nga mucc alaxira waaye bu ñu toogee fii nag ba dem ba xameetuñ ñu tubab yi nga xamné li tubab yi def dañ koy def dañuy faat waxtu julli doon jang alquran duñ tuddu yalla manam buñu xeyé ci suñu bop lañu xeyé ka gont te wër gi ngay dem gi ngay doxé li lay ar lepp suñu borom la suñu borom digal la na la jaamu ma nga lank bu li di ah da nga am jafé jafé képp ko ci sax nak yàlla mën na laa suturaal ba nga mel ne jànj ci biiru biiru daay yi xëy na da nga tàng waaye du fa fekk lum lakk kon nag man li may li may conseillé li ma leen di conseillé jaamu yàlla li ma leen di conseillé tuub li ma leen di conseillé jàng alxuraan saa su nekkee nag te bañ koo faja problème ndax alxuraan faj problème taxu koo jóg day day waajib ci jullit bu nekk boo xëyee nga am loo ca sasoo di ca ñot ñoti di góorgóorlu ba keroog nga koy man boo ko mënee yokk yokk ko soo ko mënta yokk nga sax ca loola lépp lu man di ñëw lu mu lu mu metti metti yàlla dana la ci aar ndax sëñ Tuubaa moo ne ad durru wa nafu min rahmaani laysa minal biidaani wa suudaani loraange ak njariñ nekkul ci loxol ku ñuul nekkul ci loxol ku weex te ab jullit war naa jomb bu xëyee xëy xam ne addina dong nga ko tax a jóg ci lay ñot ñot ñot ñot ñot ñot ñot ñot ba xëy dugg ci suuf te amul lu mu waajal àllaaxira ku ko ci def bu ëllëgee fa sa yenda mujj sëñ Tuubaa waxoon dana dana xam ne moom laa leen di wax bayit waa moom laa leen publier na ko ñëpp bàyyi xel asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa